na ZER tey ñun liñ koy wax buñ koy jox conseil te wax nañ ko ko mu. le directeur général de l'ANASER doit être sur le terrain pour mieux comprendre la situation ils ont fait quatre sorties cette semaine ils attendent toujours les grands événements comme les magal de Touba euh, Gamou entre autres pour faire des déclarations. Kaolack et consorts Popenguine est-ce que journée yooyu rek la pour ñu def prévention. nekkuñu ci terrain bi ci ni ñu waree. dañ la jox ay fon jox la ay moyens. Ils ont le fon qu'il faut pour vraiment accompagner les conducteurs sur tous les plans. Mais malheureusement, ils attendent toujours qu'on fasse des infractions pour sortir et faire une déclaration. Il y a beaucoup de manquements. routière muy un accident wala dara nga door a mën a génn def déclaration est-ce que noonu la ñuy doxalee réew. dafa bari des manquements.